asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi chaîne football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo pour ñi xamante ne bee si chaîne bi maa leen wax welcome bienvenue abonné leen cliqué leen ci boobu ngeen gis vidéo bu ndóol ngeen ko setaan bu leen fàttee tamit un c'est très important mbokk yi comme ni nga xamee liste Aliou Cissé moo ngi war a le premier septembre ñu am ñaari jongante beneen bi lay convoqué pour ñi ramener sa ne saraan ñu ko euh, xool leen chaîne bi dinañ ko que nous ngeen 27 jours yu mu leen andil parce que presse vite on est 27 jours la ñuy convoqué du coup defal naa leen liste boobu léegi nag tey damay ñëw confirmer benn information bu xamante euh, voilà am naa ko muy euh, li ci presse bi mais tey là ko confirmer muy Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye bi nekk fële 3 ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur comme ni ma ko en 2021 mas naa dem def ak moom interview ñu waxtaan ci lu bëri ci carrière am si li mu si ay objectif am li mu am tey jii lu ñu waxtaanee woon la un bon jour boo yi yoo ko cere dool gis équipe nationale A donc euh, suñu borom nak voilà d'après mes informations donc euh, dina mën nek ci liste bi di ñew léegi comme moy Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye ak la la mën apporter comme ni ma ko waxee Dakar Sacré-Cœur la nekkoon avant que muy dem Olympique Lyonnais Benfica bëggon nako ko na fa sax euh, stage du coup nag xam ngeen né partenariat bi nak c'est diggante Olympique Lyonnais la ak Dakar Sacré-Cœur donc wa Benfica lu ñu bëgg profil lu leen jour bi neex wa Lyon ñom ñom ñom ñom moom jour bi heure bu leen nexé euh liñ koy jël du coup c'est comme Metz ak génération foot rek donc li ñu mel motax tax mu dem fële ci Olympique Lyonnais nekkoon ci euh, moy moment bi fa Rudi Garcia nekk fee donc moom doon euh, côtoyé euh, ay Memphis Depay ay Aouar donc ay fekki jot na fi fekkante ak ñoñu donc benn défenseur bu ñuy wax Marcelo sax moko ko jappalé lu bëri diko wax ni mën nga am gëm-gëm fi mu ñëwee ba yéeg si équipe première bi malheureusement c'est c'est la amé gañu gaañu après Covid bi duguna na fi man ci moment bobu lu ñu ñëwee nag ñu def suñu interview waxtaan ci lu bëri et tout donc mu nekk un très bon joueur am nak un mental dans mental bu je me rappelle coupe d'arabe bi mo néwon capitaine bi dougal bi tiro bi donc euh, j'ai tamit coupe du monde ay fois yoy yep suñu petit catégorie ñom Moussa Ndiaye ñep xam na nak ñom jël bi donc mu nek ben jour bu mëna football machallah li mel motax wa wa ki jël ko wa Bastia équipe bu bu, bu emblématique du côté de France donc euh, man pour man euh, Bastia le fait que mu réussir fa franchement fima ka tégon dam ko yëkëti parce que il suffit nga xam lan moy Bastia ak sen stade Friani bobu xamantene c'est xam donc Corsi mom duñ la may dara sen sen sen sen sen derby bi ay match yu neex la à noter que waa waa waa Bastia dañ leen rétrogradé woon ba ñu dem ba national après ñu yéegaat ba Ligue 2 du coup Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye moment boobu la fa nekk mu def saison bu excellent saison bu baax a baax a baax li ni mel sax man yaakaaroon naa ne Luka Ba du côté de Leipzig du côté de Olympique Lyonnais dañ koy teg mais euh, c'était sans compter sur Pep Guardiola parce que à un moment dañu doon gis tax sot xibaar bu ñuy wax l'équipe ñu né le profil Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye intéressé na kii Pep Guardiola euh du coup sénégalais yi bi ñu gisee après mu dem 3 yi du même bon yo Guardiola mo la soxloon nga dem wacc Ligue 2 ah, lan mooy explication bi explication bi c' simple juste que Manchester City ñu mom 3 du coup dinañ mën am benn beut ci euh, Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye du côté de Ligue 2 française bu fekk def na fa ay prestations yu am am solo euh, confirmer li mu defoon du côté de Bastia ñëw mën sa cité lu mëna a la donc c'est un très bon joueur bu xam bu ñu ci ay qualité dañ wax né li muy gagné ay duel bari na il est bon dans les relances man na taakale am na doole euh, impact ci défense bi jusque Euh, expérience lay gën a jàng je pense que boo demee équipe nationale du Sénégal gis ñoom it Abdoulaye Diallo gis yeneen joueurs yi fa nekk ay ñaxate le côté expérience di ko am di am di ko dina baax trop daal pour sa carrière et Ligue 2 métti na métti bu xamante boo confirmé li nga defoon Bastia euh, ku ñu war a bàyyi xel nga et donc dans la logique de préparer l'avenir dans la logique de dama war a def euh, coupe du monde beneen génération moo fa mooy booy yi fi nekk naa cette logique là Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye franchement foofu la kay bolé à noter que suñu malheureusement u 3 moo newoon suñu capitaine ñu wonon sax qualifié euh, pour mën a dem lijjanti feulé aux Jeux olympiques moo newoon suñu capitaine malheureusement dañu tok donc ki moy Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye jour bu baax la la fekk ñu convoqué lu mu mérité la parce que def na benn saison bu bu excellent et dans la logique de préparer l'avenir c'est c'est lu baax la leneen lu wax lu xamante mën nañ ko wax moy que ki di suñu Kalidou Koulibaly dafa dafa nar a absenté parce que quatre semaines lañu wax né euh, lay tok du jouer man gis naa ko ak Neymar je pense gis ngeen vidéo boobu c'est pas nag ndax wér na fi si diggante ba war a mën a nekk au top pour suñu ñaari jongante yi di ñëw mais la logique dama ko bëgg a remplacer et que mois d'octobre am nañu yeneen ñaari match contre Mali. ak contre Cameroun woo ñaxate nii euh, Abdoulaye Ñaxate lu baax la parce que même Kalidou Koulibaly ni mën a ñëw contre Cameroun contre Mali te octobre la ñuy donc septembre mooy ñaari match yi wax Rwanda ak ak ki mooy Abdoulaye Ñaxate Ndiaye et l'information nekk si prochain liste bu Aliou Cissé noo leen gisee booy bi lan ngeen yaakaar euh, war na ko mën a apporter en équipe du Sénégal ci commentaire yi wax leen ma ko euh, sant leen gërëm leen wax leen ngeen dooleel ma si yeneen plateforme yi lii di Twitter Instagram TikTok boo ñu tapee seen football TV incha allah di nga gis suñu logo bi maa leen di jaajëfal wax leen ba beneen sur seen football TV.